saar wi ñuy wax sóoratul xadiid dañuy fekk yàlla di fa santaane joxe sa alal ci aw yoonam borom baa ngay wax naan aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma jaalakum mustaxlafina fii na ngeen gëm yàlla ko yonanteem waaye na ngeen di dundale ci li nga xam ne dama leen caa wutal man yàlla li nga xam ne du alal sama alal la leen ko dénk bëgg nag ngeen di ca def li ma leen ca sant ta daa bokk ci li ma leen ci sant mooy ngeen di dimbale ñi ngeen tane sunu borom ci saar woowu ba tey ma ngay wax naan wa maa lakum allaa tunfiqu fi sabilillah walillahi miraatu samawati wal lan moo tax du ngeen jël seen alal yi def ko ci yoon yàlla te ngeen xam xel ne da ngeen di faatu bàyyi fii seen alal yi ma doon ko doon donnaale lépp loo xam ne mi ngi woon ci kaw suuf ñu doxaat tuuti yàlla waxaat man da alladi yuqridu llaha qardan xasana fa yudaa'ifahu lahu wa lahu ajrun karim kan ci yéen mooy lebal yàlla lebal goo xam ne gu rafet lay doon yàlla fulal ko ko du yem ci fulal ko ko waaye dana am yool bu tedd bu koy xaar muy àjjana jamono ju nekk nag baax na nga def ca lu baax waaye jamono yi dañoo gënante yàlla day tànn noonu itam la tànne weeru koor ci yeneen weer yi des mu weeru yiw woo xam ne weeru barke la weeru tabe la yonent bi sallallahu alayhi wa mi yàlla yónni woon ci noonu bu weer yu ma taan ñëw day tabe lool kon seen mbokki jullit ñoom ñoo dajale lañu ñu am ngir bëgg cee dimbale seen yeneen mbokki jullit yoo xam ne mën naa am sax xamuñu leen boo doon jël sóoratul baqara da nga naan ndax yàlla moom du dafa jël al infaq fi sabila jox ko ahamiya boo xam ne jox ko sax yeneen ji des yàlla xam na ne foofu la fa nekk ci laay yu wane ne dañoo war a joxe alal kenn xamu nu mu toll te dañ leen a teg dañ leen a tegale di ko tàmbalee ci masalul ladina yunfiquna amwaalahum fi sabilillahi da ngay dem di dem di dem lépp ci wàllu woowu la ci lool ci loolu lay wax day wane ne lislaam ji lislaam yi joxe la lislaam ji lislaam yi dimbale koo xam ne yaa ko tane la kon noo ngi ñaanal ñi nga xam ne ñoom ñoo génne ci seeni poos luñ mën a jënd lii mbokk maa ngi may wax léegi na ma li ci gën a ràññeeku mooy li ëpp ci lii ñi ko def ci biir réew mi lañ dëkk te ku ne xam ne ne bay moom ci sa beew sa tànk buñ ko amoon ci biti nag danañ ko jël ndax ay jullit rek lañ waaye nag li ci gën a am solo te gën caa neex mooy ñi joxe lii ñi ci gën a bëri ci réew mi la ñu nekk kon nag loolu la ñaan fii yàlla nangul nu te nangul leen barkeelu te barkeel leen Euh, xëy na li nga xam ne si lu ñuy war a expliquer waat la ñi nga xam ne si ñoom ñoo euh, bindu ñenn ñi euh, xëy na mii noonu nañ ko fi daaw taxoon ñu batale woon ne bu fi nangam ñëwee loolu liñ bind xaw naa bëri ba nga xam dañoo mujj genn gi dañ ko mujj séddale ñaar ndax ñun lim bi ñu am dañoo bari bari goo xam ne si faaw ni ñu mën a def rek moom mooy benn bu nekk ñu boole ko ñaari doomi aadama on est très satisfait de vos dons. On invoque Allah qu'il euh, qui vous les accepte. Mais voilà, le chemin est long, les demandes sont nombreuses et on compte vraiment sur vous pour euh, satisfaire beaucoup plus. En tout cas, votre solidarité est la bienvenue. On compte beaucoup sur vous, Inch'Allah, pour continuer cette, euh, campagne forte du partage. On est à la 9e édition, mais nous-mêmes, on apprend. À chaque fois qu'on sort, on apprend, on découvre vraiment des réalités. Mais le point commun, c'est la précarité, c'est la... Euh, voilà, c'est vraiment le niveau de vie qui est hyper bas. Vous pouvez participer à cet élan de solidarité en envoyant vos contributions